ci weeru koor gu tedd gi président Pape Diop yabal délégation bu mag ca booba Balla Faye di responsable nekk ci département de Mbacké ànd ak jiitu jigéen ña di Mariama Touré ak ay responsable yu fasantikoo demoon nag seeti njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall ñi ngi ko tàmbalee si kër Serigne Cheikh Jëmb Fall xalif général te Baye Fall bin fi ak say jébbal ko addiya Pape Diop li nag di firndeel ni waajuram bu góor ba jeexoon loolu si maam Cheikh Ibrahima Fall kóllëre gi àndaloon ak famille bi tey jii moo ngi koy wéyal enveloppe bi 500000 francs moo ci nekk naka noonee Balla Faye yëkkati kàddu delloo si tànk yi. aleykum wa rahmatullah euh, Serigne Cheikh Jëmb Fall xalifa maam Cheikh Babi Mouridina tey jii ñu ngi fii ci Mbacke Bawal ci këram gi nga xam ne moo nekk ci Mbacke eh, bi ñu ñëw nag eh, ñu ngi ñëw ci ndigalal eh, président Pape Diop ñu gën koo xam ci sëriñ Moustapha Fall di nga xam ne moom lañ ko dippee moom maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babil Mouridine di muy sa wàjjur wu tedd wa tey nag ku dugg ci biir kër gi ba gis li fi li nga xamante ne bi moom la moo fi nekk nga xam ne Cheikh Ibra lëggéeyal na Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasoul waaye yàlla fay na ko ndax ku gis sa jotaay bii xam ne jotaay la boo xam ne yaakaar naa ne sunu borom moo fi dara jaale nit waaye ilaa mu jagale ko mu ñëw jàkkaarlook sa jëmm ju tedd ji bi ñuy ñëw nag biig ci guddi la ma président woo wax ma ne ma Cheikh Ibra dama bëgg nga siyaare jël ma Serigne Cheikh Jëmb Fall ndax man maa bëggoon a ñëw waaye xat-xati jamono moo tax waaye nee na bu ñu naanee ndox incha allah dina joggil boppam ba ñëw eh, def ay siyaaram mu wan ma ne ma da ngay fexe délégation nga ànd ak ñoom pour dem siyaareel ma xalifa bi joxal ma ko sama addiye joo xamante ne bii dafay jublu ci maanaam muy euh, euh, koor gi ñu nekk ndax kenn ku ne xam na ne Baay Faal moom bu weeru koor xasee teru léppam ñee na ngi ci di liggéeyal Serigne tubaa ci bindeefam fami ndax la sëñ falu mbake mu baax ma daan wax jaamu yàlla ci jaami yàlla yi waaye yéen kenn ku ne xam na ne bu weeru sahur Ramadan xasee teru du ngeen mas a wàcc sax fu ngeen toll yéen a ngi ci liggéey bi waaye weeru koor moom kenn ku ne xam ne ne liggéey bu rëy bi nga xam ne yéen a ngi koy liggéey ci biir fi nga xamante ne bi mooy ci département bi ak feneen fu du département bi di togg ay berne di ko yót Serigne Touba kenn ku ci nekk ku di taalu bi tey murit gis nga liggéey bu rëy boobu nga xam ne yéen a koy liggéey euh, kon dal Fall dañu ñëw tey ci turu président Euh, wax dëgg yàlla dañoo xaw a lottu ci wax ji waaye la mu waxoon lépp ndax xam na li ko boole ci Cheikh Ibra ndax nee na moom man sama lépp Cheikh Ibra la ndax bi ma juddoo sama wàjjur bu góor sëñ Modou Moustapha Fall la ma tuddee wàjjuram bu góor euh, sëñ Cheikh Ibra la daan siyaare ku ko xam-xam na ne ci bay Fall la ma sa doon waaye moom fee mu nekk muy kër Cheikh Abdoul Khadir Mbacké xam na ne maanaam Cheikh Ibra mooy lépp yoon wi fépp foo xamante ne bii maanaam nit jàpp na fa it euh, xam na ne yoon wi moom Cheikh Ibra la kon daal dafa ñëw fë feddali kóllëre pour siyaare si pour euh, yeesalaat boppam jébbalaat leen boppam xam ne moo gi yéen benn ngeen xelam dal na ko ci dal na ci yoonu ci seen kër yi ndax xam na ne seen lépp mooy yéen te yéenay moom waaye daal nee na ngeen dolli koy ñaan dolli ko fu mu toll daal mi ngi wax amiin ndax dafa am mébét moo xamante ne bii daf ko am ndax kenn ku xana xam na ne fee pale ba nekk tey euh, Cheikh Ibra ko moomoon te wax dëgg yàlla euh, xëy na maanaam mëneesu ko kii waaye nag yéen ki bérébu ñaanukaay euh, foo xamante ne day dagg di joxe ku fa ñëw war a wax sa soxla ndax yéen lépp lu ngeen wax Serigne Touba maanaam incha allah dina ci ànd te lu Serigne Touba loola sotti ak seen maam ndax seen maam moo ko lëggeel ci yoon yi mën naa ne yoonu murit Baye Fall la yoonu murit Cheikh Ibra la tey nag maanaam ku la gis xam ne gis na Cheikh Ibra ñoo ngi siyaare di sant soxna Daba Ngom mii nga xam ne moom ci kër gi la bokk euh, doon jàmbaar ju wér euh, depuis weeru koor wi teru ak léegi kenn ku ne xam na gis na taxawaayam bu ñëwee ak bu ñëwut ndax moom du ñu umpante benn yoon ñoo ngi leen di wax ne rek moom li ko war lépp mi ngi koy def euh, suñu yaakaar dal na suñu xel dal na ci moom fépp foo xamante ne bii xalaat na ko muy xalaat boo xam ne dafa jëm si kër Cheikh Ibrahima it dañ nañ ko ca fekk ndax xam nañ li nga xamante ni moom ci boppam fi mu ñu féete xam nañ ko fi mu féete président it xam na ko yéeneem mit xam na ko eh, ànd ak ki nga xamante ni mooy moo di soxna Mariama ture nga xam ne moom deesu ko présenté ci département bi ndax kenn ku ne xam na ne wax dëgg yàllaam jigéen ñi eh, parti bi fi ñu féete ci wàllu àdduna mooy responsable des femmes doon jàmbaar lool nag doon ku ñu naw moom itam ak délégation bi ñu àndal soxna baali seen ñoom ñëpp ñi ngi fi ak euh, euh, soxna euh, Fatou Khoudia Mbacké ak soxna baali ak soxna moomindooy ak soxna baali seen ak ak so sëñ Abdoulaye Lo étudiante la waaye moom it mi ngi nii ci sama ginnaaw ak soxna Daba Fall ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom lañ fi fekk li li ñu délégation bi àndat euh, euh, riis na lool waaye ñëpp dañoo mënta xaj ci kii ndax ñu bari ñu ngi ci biti waaye daal Fall Ndiaga ñi ngi lay delloowaat loxo yi di la delloo siyaar di la delloo jaan di ñaanal yàlla suñu borom tabaraka wa moom mi mën a sàmm te mën a aar yàggal la fi yàggal la ci suñu kanam nga yàgg a taxaw sa liggéey maam bi ba ni ko si sa ni ko ni ko fi sa maam yi euh, maanaam bàyyi woon nga liggéey ba liggéey lu kawe njortal bindeef yi nga xamante ne bi ñoom nga ne ci seen kanam ñoo ngi siyaar tey ñaan saw fan gudd lool Fall Ndiaga ñu yàgg fee ñëw yàgg la fee fekk bi jaay Seydina Mouhamed alayhi salaatu wa salaam barkeb si weeru sanru Ramadan wi ñu nekk yal na yàlla nangu seen ab liggéey yal na Serigne Touba nangu seen ab liggéey yal na Cheikh Ibra jël li seen ab liggéey jébbal ko Serigne Touba. te bu ci sëñ Touba jotee rasulullah yi dana jot bu ci rasulullah yi jotee yàlla dana ci jot. sëñ bi si kàddu bëkk néeg bi tamit yëkkati na kaddu yu am solo gis taxawaay bi rafetlu ko ni kat li tey kóllëre bi lu yàgg la firndeel aussi taxawaayu Pape Diop si njaboot njabootu Baye Fall. rek ñoo fi teew yoonu murit moom ni nga ko waxee rek képp koo xam ne tey waxuma la nga sukk jébbalu waaye nga am yéene rek na nga xam ne Cheikh Ibrahima mooy sëb sëriñ kon Cheikh Ibra tey mii moo fi jëwriñu képp koo xam ne tey ab murit nga loola nag li nga wax sànq ci président Pape Diop dañuy gën gàttal wax ji rek waaye sëriñ Pape Diop moomu di Cheikh Moustapha Fall musta jóg ci sëriñ bi ñàkk ñàkk koo mës a ñàkk a bañ a liggéeyal ci loo xam ne lu nu mën a seede la ndax sëriñ bi daa am liggéey boo xam ne da koy liggéeyal sëñ te am ci loo xam ne mënu cee ñàkk waaye nag moom ci boppam yàlla taw féexal ko ba liggéey boobu moom mu dugal ci loxoom dugal boo xam ne amaa mën na koo bañ a yëg waaye sëriñ bi yëg na ko te ñun ñi yëg nañ ko yëgin woo xam ne yëgin wu wér la loola nag mooy bu ngeen demee ngeen jottali ko ak cant bu baax mu jóge ci sëriñ bi jëm ci moom loola nag weesuwut que ne ndog yi nga xamee ne mooy ndog sëñ sëñtuwaay yi te seera sëñ Tuubaa ko seera Fall bañ ca tollee ngir war a di yar ay ginaar moom dafa am barab boo xam ne bokk na ci barab ya gën barab ya nga xamee ne moom moo ko gënal ba ñu ba ñu gëstoo ba xam ne moom moomu ci kilifteefam la bokk bañ ko ko waxee dafa waxoon ne sëriñ bi sax warutu warutoon a tàggoo na dem defe na ko neexee diir ba nga xamee ne suñ borom dogal na neex gam ko neex moom ak sëñ bi pas-pas ba mu ci am ak bëgg ga luñ fa dugal lu ne day méngoo ak la nga xamee ne moom la sëriñ bi bëgg ndawal guñ indi mu guñ indi fii rek ca barabam boobu lañ ko yare indil ko ko fii loola kon moom mosu cee jóg kon boo demee na ko santal sëriñ bu baax a baax xamal ko ne ko ay jëfam mosut a jóg ci sëriñ bi ay ay ay loxoom tamit mosu cee jóg ñi nga xamee ne ndaw yi sëñ bi lañ saa boo xamee ne dem nañ ci moom ba gisante ak moom moom day mel ni sëriñ bi moom moo teew day defee na nga xam ne noonu la ko bëggee sëriñ bi fekk na ko ndakaaru ci jamono yu yàgg boobu meer meeru Ndakaar la woon waaye jox na ko cër boo xam ne xam na ne sëriñ bi baayam la xam na ne sëriñam la xam na ne xaritam la kon yéen bu ngeen teewee di ay ñoñom war nañ leen a seedeel ci moom seede boo xam ne ñun ñii la ñuy wax ci moom lu lu wér la ndax bari na ci loo xam ne ndigal li day jóge ci sëriñ bi jaar ci man mu mën a ma mën a am ku ma yabal wala ma dox ba àgg ci moom door a leeral loolu kon loola ñun lu ñu wér la ci loo xam ne da koy jëfe-jëfin woo xam ne jëfin wu rafet la kon bu ngeen dellusiwaatee tey jii di indi liggéey bi nga xam ne mooy liggéeyu koor gi kon dañuy xam ne sëñ Pape fàttewut sëriñ bi waaye nag sëriñ dafay wax ne ku la la fàttewul doo ko fàtte ndax yàlla ci boppam ku ko yëg rek la bëgg saa boo ko yëgee ak loo ko mën di defal rek soo ko yëgee moom lépp sa lépp sa lépp yëg si na waaye neel Pape dal xam ne sëriñ bi du ko fàtte ci lii mu nekk xam na ko xam na tamit lim ci bëgg dana ñaan ci Cheikh ma Fall ñaan ci darajaay turandoom ma muy suñu saafaal di waajuram mii suñ borom defal ko la mu bëgg mu am ko yéen ñii tamit rafetlu na bu baax ànd gi nga xam ne moom ngeen àndee ak pap ndax ñii nii rek la nit mën a ànd ak nit ndax weesu wut que ne fu mu munta dem fu ne nga demal ko fa su boobaa la mu bëgg dana ko amee na ko bëggee ndax bu teewoon sax bu teewoon lii mu lii ngeen wax nii mën na ko bañ a wax kon yéen yéen yéen indi jëmmam kon moom yëg si na waaye nee leen ko jaa jëf jaa jëf nag koo ko dégg xamal ne daa jëf jëfin woo xam ne jëfin wu rafet la waaye loolu nag ab soññe la sëñ bi daf ma daan wax naan ma koo dégg ñu ne jaa jëf nan laa soññe ngir nga gën a mën a dox waaye moom nee leen ko jaa jëf yàgg naa jëf nag waaye nee na neel neel sëñ bi sëñ bi xam nag bëggam dina ko ñaanal ci doole Cheikh Rafal ak Cheikh Moussa Fall mu defal ko ni mu ko bëgg yéen ñi tamit suñu borom jàppale leen ba li ngeen bëgg ak li ngeen ko bëggal suñu borom fekk si leen ci na ko bëgg ngeen defe ko noonu nee na jaa ngeen jëfati nag jaa ngeen jëf. tournée bi di wéy seet nanu kilifa yu bari yu si mel ni Serigne Talla Fall waaye tamit Serigne Moustapha Fall takk der Serigne Cheikh Fall Mbawor. sëriñ Cheikh Mor Talla Fall sëriñ Modou Talla Fall sëriñ Fallou Khady Fall moom sëriñ Abdou Sakor noonu lañ ko wéyle bisum lëmb bàyyiwuñu benn njaboot fu ñu dem kàddu gi benn la rafet lu taxawaayu président Pape Diop si yoonu Baye fal ni leen fale fonk leen te nag lu nu xewlee moo say njëkk ñoom nag amuñ lu dul seen ñaan gis ni kat nii mu leen fale lépp lu mu bëgg si lii mu yëngu di wàllu politique ñoom di doon def la tout ba mu yemboo bisum lëmb la délégation bi wër diggante Touba ak Mbacké si njabootu Baye Fall gépp lii di feddali ni kat Pape Diop ancien président de l'Assemblée nationale njiitu bokk gis-gis bàyyi na xel loolu njaboot gi te nag la daan def mu koy wéyal saa su nekk